ngeen ndax bo fa xasse bu dugg do gennat tank lañ bëgg ci yow amul da xam nga bo nekké xam nga euh, doomi seex rek nga nekk tout tank léeg da ngay melni ni sama classe gi mo taxal ma doon bagan seen daara yi te fu ma mas nekk sama wajur jigen di mo fekk ci te serign bi bëggutoon sama wajur di xam fu may nekk ndax xam nga kom waajur wu jigéen ni mel ci doom di def ay muuraage di ñew bu ñewé bu ñibbi ma tàmbali jooy si samay nopp ndax baagante bi lecc moko waral wa ma man dama la ko junj rek xam nga kilifa du lecc mais ak junj la quoi mais comme waajur jigen mo do ñew di fekk si dina ñew dalay ndey mu muuraag fo dem serigne bi serigne bi mu jagg dima déplacer mhm. ba nit ma yobbo ñank di ñaanal bay Serigne Gueye mi nga xamanteni wax deug yalla fala falaa kay mel yalla yok ay leeram ak Abdoulaye mhm. Gueye mi domam sur bi ma bindee ba nopp man ak euh, Cheikh Abdou tiar bu Serigne Mour Abdou Khadim ñoo no ben kamil ñoo agalando ben bis Abdou Lahad Gueye yóbbu ko jox ko Serigne Modou Abdou kaamilam man mu joxoon ma sama kaamil ànd ak man ma sama papa Serigne Baara. Mhm. mu jébbal ko kaamil bi Serigne Baara jël ma nag ak sama kaamil yëpp yóbbu ma ci sëñ Modou Boussa demee sëñ Modou Boussa Dieng mhm. sëñ Modou Boussa Dieng euh, daal di wax ne kaamil bi day dama si am yéene nan ko yóbbu ci barabu sëñ Fall bu ne jox ko sëñ Afia. Mhm. bi moom lañ doon jàng ci barabu sëñ Fall ba bi si mujj a xam. foofu laa jaar jàng alxuraan bi ma noppee si alxuraan bi jàng naa xam-xam dugg naa école franco arabe Serigne mourla ba am niveau bac euh, yalla dogal na comme nonou ma lay wax fofu la sama jang nak terminé ma dem nag liggéeyi ndax xam nga bo jangé ba xam li nga wara xam dafa am lo xamanteni mo la ci moy da nga wara dem liggéeyi nak pour mana jariñ sa bop jariñ sa askan ak sa rew ak sa njabot mhm. mhm. lolou mo waral bu mu fu jógee nak ma daal dem nak nek moudou moudou di liggéey ba yal dogal ma ñëwaat fii kariwaat samay affaire di liggéey di jàppale askan wi li ma si man ndax euh, jafewul woon nga dem euh, moodu moodu gi ndax am na sant boo xamante ne gàllu na si sa kaw te en général euh, sant googu ku mu gàllu sa kaw nit ñi dañ lay tarbiya waaw xam nga dafa am sant sant la mais jikko lu ëpp lu am solo la si nit serigne Touba li mu liggéey ñëpp la ko liggéeyal mhm. boo xasee sant Mbàkke serigne Touba jur sa maam lam la war a def loo wala nga war a def boo ko defee da nga boole nag liggéey ndax dangay ngay liggéey jaamu yàlla ndax ñaari ñooy ànd ndax moo tax nga sàmm sa ngor sàmm si diine te suñu waajur yépp ci liggéey la leen xam kenn ku nekk da nga gor ay tool mhm. sëriñ bi samp ay daara sëriñ Saliou samp ay daara kon yooyu boo si nekkee dangay war a tàmm liggéey te tumuranke woon nan si yoon bi avant ñuy àgg foofu noonu ndax sama papa yóbbu woon na ma doli may bay di jàpp ci machine yi après ma keree tamit élevage di di sàmm di def opération tabaski ba keroog may mën a dem ndax loolu lépp dafay mel que ni bu fekkee dafa am fon na ma jëm dafa am looy tabax avant nga fay àgg ndax pour nga am sa ngor pour nga sàmm sa ngor il faut nga am sa loo sukkandiku. pour nga sàmm si diine il faut nga nangoo jaamu yàlla ñaar yooyu ñoo mën a ndax nit ku am ngor ndax da ngay sukkal ay nit xam sukkal wala nga dem liggey mo la man tay ji nga am sa indépendance économiquement financière ba nga xamante do am ci kenn complexe liko ko jox jox na lako bu lako ko joxul tamit am nga lo mën sutlo ba nga xamanteni tay nit ki boko day ñaan wala nga yaakar ci mom rek dana am bët bokoy xol ñun loolu dama ko teel nampal xam ko sama bop mm-hmm. yalla dogal na comme ni nga waxe bima démé ma Italie malgré rek jafe dama ñew ni man kat ñi tay ma ñew seen kër nek jox seenu lal wacc jox ma di togg di ma jox mais ñooñu kat jàpp naa ne war naa xool si ñoom ba xamante ne lii damay ñëw duñ jox ma àddee ma dem malgré que war nañ ko def waaye naa xool ban tànk la ma daal di nag ne dama bëgg liggéey ñu ne ah sëriñ bi liggéey man ne waaw dama bëgg liggéey booba état li pour nga liggéey da ngay ami kéet mais sa dommage ko amuñu woon kéet dañoo àbboon ay kéet di liggéey demoon naa tey jii bay liggéey ba jiite woon nekk kàpp fabrique fabrique yi defar welo man dama doon welo fu doon welo maa ko ci réew bu ma ko defaree tey jii maanaam dañ koy ba dawal ko danga nga naan net loolu moo taxoon sax ministre de environnement bi mu ñëwee may leen pourquoi mun ñu mun ñu créer benn usine vélo Sénégal ba nga xamante ni kilifa yëpp dañ am benn suur boo xam ne Sénégal dañ mën di dawar vélo <coughs> ndax tey président France ay président Canada premier ministre Canada ñëpp tey dañuy dawar ay vélo am yooyu ko ñun war nañ see jël une exemple dañu mën a sàmm suñu environnement suur boo xamante ni dañuy surna environnement lépp nga xamante ni oto du fi daw pour pour préserver yooyu yëpp proposé naa ko loolu moo tax bi ma demee tamit wax dëgg yàlla liggéey ba nga xamante ni am naa sama teranga ma ñibbisi fii tabax sama kër yor samay soxna après nag ma créé samay entreprise bopp au niveau de Sénégal pour continuer sama liggéey bañ a toog. Mm-hmm. entreprise sànq ci waxam mi ngi wax fi mu jaar ak fi mu jàngeeg yooyu yëpp eh, mais est-ce que sa sa sa ndaw. Eh, diggante yooyu yëpp nga jaar amoon na ci ay moment yoo xam ne ça a vraiment très difficile métti woon na ci yow. waaw métti woon na si man ndax eh, wax dëgg yàlla situation bi ñu nek suñu wajud nekkuñ ci woon man do na tok ba bu may jangi ndam dama don dox joge khayra dem ba sar ndam mhm. dama don dox aller retour sama waajur duma dox pass awma pass mais ma gorgolu xamni sakku xam-xam ak bëgg lu baax dafa am lu muy jaar metti won ci man bi ma demee ba nga xamanteni sama papa xaxal na man ni ma tank dugg sama kër metti won ci man ba nga xamanteni sama yaay sax dafa muju jam jëlis ay gendarme ñu ñew jéng ma ci sama kanamu naaw la xam nga bo nekkee mbàkke mbàkke bu ndaw di sol ay mbassin say naaw di sol mbassin ngeen bokku di tok fofu la ma fekk and ak ñaari gendarme ñu jéng ma ni ma il faut nga dem ci daara ji jéng bobu ci la bindé kamil kon yoy yëpp manam metti wona waye il faut que liñ bëggoon am naa ko mm-hmm. ndax xam nga bu fekkenté ni tay ji euh, lolu amutoon peut-être que fiñu aksi man nañ fa bañ aksi lolu la ci tontu Mhm. mais ci wàllum ci wàllum mbokk parce que bu ñu bu ñu ligne bi am na sax xëy na ay coow yoo xam ne jugoon na fan yi exactement lan ngeen bokk ak Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Wa li ñu bokk ak Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul Serigne Touba taawum bu jigéen mooy soxna Fajja mooy rekk sama mam bi jur sama bay. Ben, sama mam bi jur sama mam, moom ak bàyyi Serigne Touba ñoo bokk benn baay. muy Serigne maam Abdou Khadir Mbacké. waaw mam Abdou mam maam Abdou Khadir Mbacké ak maam Mor Anta Sali Serigne Touba. dem liggéeyi bu lekk jotee ñu tibbale ñu dem lekk bu ñu xat-xatloo bu ñu xat-xatloo ndax kat ay doom lañu daay dafa lu namm si ñoom moo tax ñu indi ko. Mm-hmm. bi nga xamante ne Serigne Fallou ma leen li Serigne Abdou Diouf namoon si moom def na ko sëriñ Baara ci la ko Serigne Fallou boole ak sëriñ Modou bu sa jàng ni ko del ànd ak moom daal ni ko sëñ Modou fu ma la gis naa gis sëñ Baara fu ma gis sëñ Baara naa ngi ànd nañ 45 ans ànd nañ ko ñoom ñaar. mo waral biñ ko bëggé def député. bi moo tax léegi jël señ Modou Bousso Dieng. ñu àndee ñoom ñaar wala soxnam def ko député. mu choisir seen waajur. biñu andé ñom ñaar and bi rafet dañ ko sëriñ Baara and gi di rafet na lool jaxasoo gi amna waye bala balaa gi gëna dëgër suñu njabot dara ji jaxasoo daal jël taawu sëriñ Baara bu jigen jox ko domam mu am ci dom mu daal jëlaat domam mom jox ko domi sëriñ Baara muy sëriñ Modou muy sëñ Modou mi sama mak domi sëñ Modou bëss jang la yore muy soxna mbenn mu am si ay doom mu daal di jëlaat tey jii may wax ak yow xalifa sëriñ sëriñ sëriñ Mour Bousso muy sëriñ ji doomam laay denc mu am si njaboot kon njaboot googu dara yi ma doon wax jaxasoo gi am na. bi ñu bi si mbirum politique bi li nga wax noonu. Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade 98 sëriñ Baara si boppam bi Abdoulaye Wade ñëwee di jël ay doomi kilifa mooy njabootu diine yi après ci la jël sëriñ Baara. ci li nga xamanteni ci la waxtan ak seigne Mourou Boussa Dieng seigne Mourou Boussa Dieng danuko ki sama rak la te japp na li nga bëgg war na lako mëna mën a defal après boole ko moom mu tanuko mu nekk numéro 4 ndax numéro 4 bobu da di symbole bo xam ne Ablaye Wade am lu mu si jublu ndax bimu ko defee député 98 c'est la première fois Ablaye wad mas a gagné Touba ci mhm. la gagné Touba andon nak ben kilifa diiné duma ko tuddu ak kilifa yu bare bare ñom ñepp bayyi won nak Ablaye wad bimu opposition bam dess menum seigne bar sëñ Baara moo fi nekk Ablaye Wade ba nguur gi ñëw mu ànd ak moom ba ni Ablaye Wade jeexal mu continué ñun ñu ngi si Ablaye Wade. mu dugg à plusieurs reprises même nekk euh, député à l' assemblée euh, ngeen ngeen euh, nekk ci wetam est-ce que du loolu moo leen tax ngeen dugg ci wàllum politique yéen ñi nga xam ne yéen a si nekk. waaw xam nga dafa am loo xamante ni bu fekkente ni sa waajur dafa am si lu muy yëngu boo nekkee doom ju baax danga nga ko jige même bu dul dara sax nga xam si li nga xamante ni moom la yëngu lu mu doon pour nga jàppale ko ci loolu moo waraloon ñu nekk si wetam jàppale ko ci ba ni mu nekkee député ñaari yoon ni mu fi jógee nekk sénateur loolu lépp ñu ngi ci cabinet ñu ngi ci wetam man bi muy nekk député nekk vice président assemblée nationale ci laay war di wax lu bari Macky Sall mii fa la ma daa fekk sama papa moo jàppale Macky Sall ba dugal ko Petrosen ci Ablaye Wade moo jàppale Macky Sall ba nommé ko ministre de l'énergie moo jàppale Macky Sall ba nommé ko premier ministre kon xam naa lu bare bari loo xamante ni relation la bu amoon diggante moom ak moom ndax lu fa daa ñëw man mii maa daa fekkee Ami Daaba moo nekkoon secrétaire bi Ami Daaba moom je crois que moom mujj nekk benn secrétaire bu premier vice président bu assemblée nationale moom moo moo ko daa introduire heure bu ñëwee man ak moom ñooy bokk toog ci salle bi naa lu baree bari loolu moo waral bi mu nekkee ci Sénat tamit président Pape Diop jamono yooyu noonu nekkoon.